nee nañu yent yëf yi boo ko moytoo mucc ci yent yi ba ci jëkk mooy soo fexee ba bañ a añaane kenn kenn lu waaye am rek nga yéene ko ko kon doo am mukk xol bu naqari ñaareel ba mooy bul di ànd ak ku bon booy ànd ak ku bon rek gis yaraange mu lay dal di am yarange fo tolu do ci man dara kon nak bo to andale ak waju bon fexé bay and ku bax rek da nga mucc ci yarange ñettel yu moy fexel ba bu moy yalla moy yalla mo yobbo sawara kon nak bo sore ak moy yalla mucc ci sawara di ci mujju moy bu dajale alali aduna te do nangu dara genn boy dajale aduna te do nangu dara dara genn faaw nit ñi nonu la bo bëggee nit ñi bañ la nonu yene la jamm bu dajale alali aduna mba bok boko dajale de ko joxe ngir yalla amna ku xam hikma ku xam doom ne ko juroom benn yi ma ngi la koy denk boko samé nga amé xel mu rafet matamat ba ci jëk moy ku la gën a xam dara daal loolee mu la gën a xam bu jekk di ca xëccoon teeg moom ñaareel ba mooy lépp loo xam ne mënoo caa jot bu ko jéem a yóotu ñetteel ba mooy bul wax ci saw làmmiñ mu wuteeg la nga fas ci sa xol ñeenteel ba mooy say wax ba mu say jëf juróomeel mooy mbir mu dëgmal si mooy loo xam ne yomb na la na nga taxaw temm ci jot ca te bul bàyyi mu raw la bu la rawee rek da réccu loo sàggane ba mu raw la waaye nag mbir mu xës raw ba noppi wan la gannaaw bul jekki di ko dabu ndax da ngay sonal sa bopp rek bi ko juróom-benneel mooy na moytu yàkkamti yàkkamti nee nañu yàqate rek ba arab sax di ko tudde ndey rëccu maanaam yàkkamti mooy jur rëccu yonente bi nee na juróom-ñaar ñi bu bis pencee ba kër jafe suñu boroom dana leen keral ci keram googee ka ci njëkk mooy ilimaan ju maandu maanaam ku jiite nit ñi ba noppi aw ñoom ci fa wàlla bëgg ku rek ñaaral ba mooy kuy farax yi def lu baax te di ko làq ba nga xamee ne kenn du ko yëg nga xam ne loxob càmmoñam sax du xam la loxob ndeyjoor ba joxe wala fa bëgg wax rek mu làq ko bu baax a baax ñetteel bi mooy góor goo xam ne jigéen ju rafet da ko woo ci boppam bëgg mooy moom yàlla mu ne man day ragal naa yàlla xalaatuma mooy mu jàkkaarloo man di ko ñeenteel mooy waajoo xam ne fu mu toll nii ngi bàyyi xel jàkk jàkk julli mbooloo ma xamne ne saa yu rek nang koy waajal dal ci dem bu ci jóge it ma ngay xalaat num mu delo rek waye mom xolam mi ngi tak mom jakk ji da ko fàtte benn yoon bokku na ci yalla yi keral ci bisu bobu ak waxambaane yoo xam xamne limu don don doon ndaw dafa daal di fal rek ci jaamu yalla jaarul ci topp yëfi do balu koy duru xana sax rek ci jaamu yàlla ak waa joo xam ne dafa wóob dudd yàlla fàttaliku ko ragal yàlla tax koo jooye bi ci mujj nag mooy ñaar ñoo xam ne dañoo soppante te yàlla dong tax ñu sax ci noonu nag ba yàlla dogal ñu tàggali ko ne am na juróom-yaar yoo xam ne benn bu ca ne balaa am njariñ am benn bu ànd ak moom kon muy juróom yaar kon muy juróom yaar yoo xam ne juróom yaar leen di tax a baax ba ci jëkk mooy nga wax ne wax bala am njariñ ñu boole ca jëf waxi kese yu àndut ak jëf amul njariñ ba ca topp nga ne neex a gis boo ko dee xool mu neex a gis baax na waaye la koy tax am njariñ mooy biir ba it am solo bu kaw ga rek rafetee neex a gis waaye biir ba baaxut du am njariñ ba ca topp mooy am day baax na waaye nag balaa am njariñ ka am boole ca tabe di joxe am te lu joxe moom bariwul njariñ ba ca topp xaritoo neex na lool te baax waaye nag balaa am njariñ kenn ku ne ci ña xaritoo matal wëlëre fekkee matal wëlëre ak sàmm xarit ga amu ca xaritoo ga amatul njariñ dégg diine dégg shariha lu baax a baax la waaye balaa am njariñ nga dégg diine ànd akuk sàmm di moytu lépp lu sharia aaye bay moytuwaale sax la lënt ba ca topp mooy saraxe def sa alal ci yoonu yàlla fekk ku loru nga xettali ko jox ko ngir yàlla baax na waaye bala am tuyaaba kooku ànd caag yéene ju sell yàlla rek tax waaye saraxe goo xam ne ànd ak yéene ju sell niki daal lu bëgg rek ñu ne ko saraxel nangam kon nga am ko wala mu seetlu ñu ne ko saraxel rek mu daal di saraxe sarax su mel noonu àndut ak yéene bi ci mujj nag mooy dund li muy neex neex balaa baax kay dund ànd ak wér ak jàmm wér ak jàmm moom bu amul ci dund rek dund ga daanaka dee koy tane nee nañu ab jullit balaa mat dëgg-dëgg juróom yaar yi dafa tase ci moom ba ci jëkk mooy lu xolam sedd sedd sedd du ko taxa dugg ci caaxaan ba am lu ko neex rekk ba tax mu dugg ci caaxaan ñaareel ba mooy ba am lu ko naqari niki mu mer ba tax mu génn dëgg lu mer mer rek du ba tax a wàcc dëgg mooy ñaareel ba ñetteel ba mooy man-man ak sañ-sañ du ko taxa laal lu moomut sañ naa ko man naa ko rek du tax mu laal loo xam ne mu ñett ba ko ñeenteel mooy la muy dunde mu teg ko ci aw yoon seet la muy dunde teg ko ci yoon woo xam ne day diggu doomu du ëppal du yéesal diggu doomu ci dundam mooy rekk bañ a ëppal bañ a yéesal ci wàllu lekk ci wàllu col ci wàllu dëkkuwaay ak doxalinam yépp ci àdduna rek mu ànd caakuk diggu doomu bañ a ëppal bañ a yéesal ba ko juróomeel mooy ne fexe ba dégg diineem dégg gu rafet rafet ba ko juróom benneel mu amee jikko ju rafet rafet ba ko juróom ñaareel mu amee tabek bakkan tamit bakkan mooy ku ko xam rek xam ne moom mi ñàkk yore ko tey joxe waaye bu amoon it joxe am na ku yàlla mayan xam-xam bu rafet mu ne yent yëf yi day yu bon a bon la taxul nag nit ñi bàyyi ko waaye ku ko def gis ngaañ la fii ci àdduna gis ko foofee ci àllaaxira ba ci jëkk mooy jëw jëw dafa gaafa gaaf ba nga xamee ne ku gàddu jësi jëw gor ko keneen faawu gaafu jëw ba jël si ci moom fii ci àdduna te bokkut ak nag mbugal ga ca alaxira ñaareel ba mooy xeet boroom xam-xam yi ndax ku xeet boroom xam-xam ba nga xam ne moo koy teete ci diineem moom ci boppam mooy wëlbatiku xeebu ndax yàq na diineem te ku yàq sa diine yàq sa alaaxira ñetteel bi mooy ñàkk sant xéewalu yàlla yàlla bu la xéewalee boo ko santut mu daal koy foqar ci te li ci ëpp bu ko foqar cee fexe ba jotaat ca danay di jafe ñeenteel ba mooy rey bakkan ci tooñ dong nee nañu képp ku rey bakkan ci tooñ mais séentu ñu wëlbati ku rey ko moom ci boppam ak lu mu yàgg-yàgg yett yi day bu fekkee sa xol amee ñagg-ñagg ak ku naqarit kenn ku ne ci yett yi mën na koo dindi ba ci jëkk mooy àndaaleeg waaju xam te maandu booy àndaale ku xam te maandu sa xol fu mu toll day dal rekk ñaareelu mooy fay bor bu amee bor fay ko sa xol tàlli waaye bor moom dañuy wax ne toroxtale ci bëccëg bi ñag-ñagi xol la ci guddi gi mooy boo xasee gàddu ay bor su beccege bor ta ka nga amel bor dal di seug so tuut am kersa te bu guddee sama xel nek ci nga diko xalat yettel bi nag moy jakarlo sab soppe ko sop deug deug bo jakarlo mom soxol day féex nenañu nañu dara ëpp ci nit ñi moy nga xam ne da wax ci mom lool ba nga ne du am pal ci kan la yàlla jox àdduna bàyyi kan bu xool mi ngi ci loxoy samba mbaa demba mbaa moodu mbaa daam moom daal amul paal ci àdduna ana kan la ko yàlla jox ak ana la ko xañ ñu ne it ki gën a tabe ci nit ñi mooy waajoo xam ne daal bërilewut dafa néewle waaye la muy néewle néewle teew koo tabe ku néewle te teewu laa tabe daal yàgg na tabe ñëpp. ci yées nag ci nit ñi mooy waajoo xam ne daa ñaaw ñaaw njort ba wóoluwul kenn kenn waaye moom ci boppam dafa ñaaw ñaaw jëf ba nga xamee ne kenn wóoluwu ko li gën a jafe nag ci mbir yi. mooy am sa mbokk moo xam ne da ngeen déggoo ci wet gu ne ñett ñi nee nañu li fekk tàggoowul ak ñoom doo am jàmm soo amee ab jaam wala surga boo xam ne bu dënga dëng la bu bona bon la tàggool ak moom rekk mooy tax nga noppaloo ñaareel ba mooy soxna soo xam ne tey soxna su bona bon su dënga dëng boo ci bëggee noppalu tàggool ak moom rek ñetteel ba nag buñ buy metti buñ buy metti li feek gisagoo gent ba rekk doo am jàmm